Tyson fële ca stade Léopold Sédar Senghor ndaysaan sama xel dem na ca ba muy bëreeg Gris Bordeaux fële ca stade Demba Diop moom l'ancien roi des arènes bëre 15 ans musul daanu doon roi des arènes 11 ans moom Yaxya Diop Yékini ndaysaan ma nga noonu Yaxya Diop ndeysaan ma nga noonu làmba noonu tey sëñ Fallou ñu ko laay te toujours ne muy wane ni daa tekki ngembam rek waaye loxoom ci ci làmb juboo moom ndeysaan ndeysaan Yaxya Joob Yékini cey miin ngeen waxam ja dama koy daan dem Joal jàll Baasul waxam la woon lamb saa su ne ndaysaan yenn champion yi di génn ci lamb yeneen relève di am génn Mouhamed Ndao Tyson ci lamb génnub Yaxya Diop Yékini ci lamb ndaysaan ki ci des yaa ngi borom bàyyi ba ci kanam ak kanam Bombardier mi nga xamante ne mooy magal xale yi ndaysaan ndaysaan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 laay laay la la kay ma jaxasoo gaa yi jaxasoo ma àdduna bi ndeysaan peres na ngay fecc ay waaw ay waay lamb jaa ngay toj la ilaha illallah Fanya jala ya, kapunga. si nga ca ca ca ca yaawu Mbacke borom Leewtoo jigéen la waaye xale bu am jom la maa ngi koy seen fu ne ndaysaan li wolof di wax loo daan wax ku góor toog boo xoolee jigéen a nga ca wet ga jaaraama président Ablaye Wade jàpp na ndaysaan daan nañ ko ndaysaan arbitre daanu na mënoo cee génn lii mooy penalty wu làmb penalty la ci làmb ndaysaan da koy daan doo ci génn déedéet doo ci génn wallaay doo ci génn maire bu baax gis ñu ñuy jàppale di ko ñaan yàlla lu man ren déwén yàlla na yokk kontaan nañ sawar nañ si pour bëre si journée buñ ko tuddee quoi wax dëgg yàlla di ñaan yàlla nag jël ko delloo ko ñu njukkalee ko quoi bi mooy sa ñaata sortie bi ñu waree ba ba léegi bi mooy sama troisième sortie bi ñu waree léegi waaw troisième sortie démb laa dem Loul Sessène ñàkk fa demi-finale barki dem tamit madame Gandiaye ñàkk fa demi-finale mais loolu dara compétition la rek ñun tollooguñ fu ñu amee bay ñàkk ay xale yu ndaw lañ 97 lañ judd ay xale lañ te gëm nañ suñ bopp lamb buñ ko doon taal si biir seebu di bëre ñun dañ siy dugg di bëre te dinañ am incha allahu rabbi billahi wallahi doo tar ah ah mais dara tar rek foo si yoon bi man heure nga déparé Dakar Dakar te la fa defaree dama tar daal mooy sant yàlla bu baax hmm. mais le moral est bon. non lépp jaam tout est bien. nga ñëw gis champion ku mel ni usine doole. loolu dara ay xale loolu a ngi ci wàllu. ay xale lañ. sële mele loolu dara yàlla yàlla dal sutura daal. ñu jël ko si vaccin naa mooy. da ngay yóbbu wala da ngay taxaw. ah jël yóbbu kay ku ñëw yóbbu kay assuré assuré. Médina Fass. Ndiafat. séeréer. ay sant bi. maa ngi am jàmm. baal ma wax gaan. baal nañ la baal ñu. yàlla bi waa ñu bëri àq. waaw ñu bëri amee nañ ma àq. mbëri. waaw mbëri am nañu non mbëri am nañu àq de mbëri. mbëri am nañu àq de ah ñun ñëpp a yem dañuy daante rek. Ah. waaw. man ay 4 ah. heures waaw. yegg si ban heure. heure bi jàpp ma ko sax waaye ji nii. mais tardé woo. waaw tey nga ñëw ci compétition fii ci ñan yi Luc Nicolaï tegal leen 3 millions ban yëg-yëg nga ci am nga gis champion yu mel ni Serigne Ndiaye 2 mu ngi fi Sele mu ngi fi Toubacouta ngi fi yeneen xale yëpp ñu ngi fi waaw loolu contentement la rek mooy compétition moo ñu boole ñëpp su jeexee jeex na mais di ñaan yàlla rek nga jël ko xama ndax la moom dafa métti te kon soo wërsëg nekk incha allah rabi di nga ci jot waaw surprise usine doole non usine yàgg na daf lu nekk na jaloore bu nekk mais tey dañ ko gëj gis ci làmb un an wala deux ans yoo xam ne wàcc suwul tey mu wàcc ci làmb waaw xam nga loolu mbégte la nag ndax xam nga mbër boo gis bëriwul rek te yor famille am na lu ko téye moo tax bëriwul mais mbër bu amee doole yëg-yëg boobam dina bëri ji ci looy waaj maa ci lii ma nekk lu tay lii bëre dóor ba mu jeex na ma jox gars yi ponkal rek ñu nees fu mu toll waaw ci moom la dese man deseetul ci man waxtaan naa gars yi nañ ñëw rek ñu bëre hmm. waaw gëj naa bëre gëj naa daan de na ñëw ñu bëre de ah maa ñaax xel bi dafa dem waaye dafa ñemee di bëre. fit fit bi toogatul. mbër su ko ñëwee bëre li ma la wax tout le du ñemee contact du ñemee tak ngemb mbër mën sax suñu borom dogal moom pour que mu ne ko ci drapeau bi nga am na doole mën naa bëre mais nag drapeau moom suñu borom mooy dogal ay guddi quoi te bëre guddi la sa bu jot taxawee mën nga bañ am doole sax di jël drapeau ah nga am doole doo jël a bëgg. ñoom ñaar yëpp ñoom ñaar ponum pir ndeysaan lu mat 64 litres ku nekk day yaakaar ne moo koy yóbbu yaakaar di tas confiance di am yaakaar di tas confiance ba keroog compétition bi di jeex moo lay wan ni làmba ngi noonu plaqué na ko da koy daan samp na bopp ba Petit Lo daan na ndeysaan daan na ko ku nekk sa nijaay ñu ne laas le roi xale yee xale yee jinne de tey lii tey lamb tey lamb boor bee kii day daan nag nekk si boor bee waaye sëriñ si boor bee sëriñ leen bégal maa nekk si micro bi ndeysaan sëriñ am sëriñ tabaxal na waxal na ko daan na ko ndeysaan tey lii tey làmb noonu làmb am solo dal ko dal ko waxal ko sama sëriñ waa bitim réew ñoo ngi leen nuyu bitim réew fay naa leen xañ na ko si ginnaaw ngay jaay de bu jaay doole sëriñ jaay tànk loolu dafa ndomba loolu guddi Ousmane Thiam bañ na sëriñ jaay sëriñ jaay dina ko Serigne Ndiaye daan na Ousmane Thiam ndeysaan daan na ko ndeysaan ndeysaan ñu ngi naan ko ndànk ci wàllu Gora Sock Sélé Mélé ndeysaan Sélé ndeysaan ak Gora Sock ñoom ñaar ñu noonu ci combat bi Gora ndeysaan Gora Sock ak Sélé Mélé mbër yi il faut être sportif il faut yar ak teggin nga bëre ak mbër mu daan la nga génn amoo looy wax ci arbitre yi amoo looy wax ci table bi Gora Sock ak Sélé Mélé Gora Sock ak Sélé Mélé Fallou Nicolai waaye Petit Lo daa mën a bëre moom it plaqué na ko mu bañ du yomb ñoom ñaar ku ci ne champion la Anta Ndiaye dama ko mës a laaj kan mooy sa idole ci làmb mu ne Marley ma ne ko Marley man mu ne ma menn mu Papa moo lay wax làmb saa su ne ngay xëy di am idole ci làmb nit lu koy lu la koy bëgg doo ko xam Petit Lo ko xoolee xam ne jarbaatu Modou ndaysaan mu mel ni làmb saa su ne xale yi ñu ngi wane seen bopp waaye ñu ngi def ay jëm ca kaw na def ay jéego jëm ca kanam ndaysaan Serigne Ndiaye bu dëw faas ma nga romb doole mooy làmb ndaysaan. Petit Lo Ndeysaan ak Antu Njaay ñii génn nañ saako yi dem ci digg géew ba Ndeysaan Petit Lo Antu Njaay ña nga noonu ñoom ñaar Gouye Gui 2 jël na avertissement moom combat bi moom du yomb Antu Njaay Anty Ndiaye ak Petit Lo yi nekk quart de finale yi mbokk yi ndeysaan ñu ngi noonu ñu lewaatoo ñoom ñaar du mën a yomb ñu ngay lewaatoo ñoom ñaar du mën a yomb Anty Ndiaye ak Petit Lo ndeysaan du yomb Anta daw na jëli ko Petit Lo freiné ko jàppante ne ñoom ñaar ku ne di déglu sa morom ndeysaan génn ngeen ci làng ba ñëw leen fii ndeysaan ñu ngi noonu mbot na Antou mbot na ko Petit Lo bañ mu ngi koy déplacé Antou da koo bëgg a jëli daa bëgg a jeexal combat bi ndeysaan jëli na ko plaqué na ko dina ko daan daanu ko du yomba daanu Antou Ndiaye du daanu wala daan na ko daan na ko arbitre bi joxe na ndam

Touba barki sëñ Bamba Mbacke al amilo moo daanu xoolal vidéo yi barki Mouhamed moo daan xam nga booy bi daa bëri wax quoi booy bi jërbatu moo loolu daa bëri wax sadu moo looyi la dañuy yàq maa gis avant ngeen bëre am na lu ngeen doon waxante yéen ñaar ndax jékki-jékki continué dugg seen écrit jaxase leen danay zilo danay ñeneen ak ñeneen ay na ñu ne la fa daan moom moo mag mu ne moom mun a daan mu ma daan li mu ma daan amelo maa ko dàq bëre foop barki sëñ Bamba Mbacke ñu ngi doon daje Bajir xoolal caméra yi jël amul bu dara mooy daanu mooy daanu Bajir am na maa gën a xas maa gën a sonn si lamb parce que sëñ Ba Mbaye bi xanaa yëg contentement rek man la Gnilane seen la panthère du maire Maguette Sène tey Olof Ndiaye nee na bés bu tuut tuut borom lay tollool monsieur le maire Maguette Sène nekkatu monsieur le maire de Malicounda kese mais le maire international waa monsieur le maire dafa liggéey ba ñëpp xam ne dafa liggéey Luc Nicolaï ñëw tey ci dëkkam ci commune am tëgg si làmb pour sargal ko noo gisee tey jii Luc Nicolaï ci biir Jalañ. Luc bi mu egsee rek xam na ne xol sedd na xam na ne Maguette liggéey na xam na ne askanam bëgg nañ ko Luc bi mu egsee xam na rek ne góor laa ko seqal. waa ku bi. man mii maa ceeb ceeb bi. loo ceebee ceeb bi. ak dépense ñaata boo ceeb ceeb bi. monsieur le maire Maguette Sène moo ma dooleel. maire mooy suñu lépp moo ñu jox dépense ne toggal leen ma journaliste yi toggal ma ma sécurité yóbbul ma journaliste yi wutal naa leen kër wutal leen fuñ ne waaw pour rek bes bi neex pour rek bégal Luc ndax ku xool bés bu toll nii àddina bi bari na nit Sénégal bari na ay leader nga taamu ci monsieur le maire Maguette Sène mënul lu dul delloo la njukkal. mbaa ceeba ceebu xale. man rek ci ceeb ëpp na du ma ceeb ceebu xale ndax du ma xale te ànduma ak ceeb bi bu déwee dana ko dettali man ñaan rek mooy monsieur le maire Maguette Sène moo ko xam yal na ko yalla may yal na ko Macky Sall def ministre ñun loolu lañ bëgg parce que maire romb na léegi directeur général monsieur le maire daa def preuve dafa wane résultat ba yëpp nangu ko maire mooy leader du département Mbour monsieur le maire macha allah daal rien à dire Maguette Sène international maire mooy maire ñëpp Sénégal ñoo fi gën maire c'est l'administrateur civil c'est le meilleur maire du Sénégal le directeur général de l'université Cheikh ñoom ñaar a ngi ci ñaling Serigne Ndiaye plaqué na ko daan na na ko doole doxul jàmm déedéet ndeysaan dafa yaru nag fair play yëkkati na ko ndeysaan daa yaru buur géwël doole daan yëkkati la Serigne Ndiaye lan ndeysaan ñu ngi noonu ñoom ñaar usine doole ak Sélé usine doole ak Sélé Mélé du yomb ñoom ñaar man da xaw ma luy Sélé Sélé Mélé mooy lan usine doole moom xam naa ne xam nañ ni moom mooy usine doole usine doole nag mooy bërëb bi nga xamante ni képp kuy wut kàttan moom moo koy jox ñu ngi noonu ñoom ñaar ndaysaan ñu ngi noonu ndaysaan ñoom ñaar ñu ngi ci combat bi daw na jëli ko sele fi mu ko jàpp baax na génn nañ usine génn na day jël avertissement ndeysaan doon nay maam góor gi Njaay ngi moo doon Moustapha Gueye moo doon Gris Bordeaux moo doon maam góor gi Njaay loo ci yokk génn sin doole sene mbele ñu ngi ci combat bi ba ñoom ñaar bu met ta yàgg ndeysaan combat bu yàgg waaye di jaajëfal Luc Nicolas nee na face à face Ama Baldé Modou Lo Gambie la ko bëgg a dina garaaw nee na ñun la ci invité cey promoteur bi. man de lig ba koy xool ak sama xol di sedd fierté réew mi la. daa neex daa bëgg a bëgg. rawatina lamb. siwli sega. kii bu Faas. fu mu romb ñu laaj kii doon xale bii yàlla na ko yàlla lafal cat ndaysaan Tony Junior ak Neymar ña nga noonu Tony Junior Neymar ndaysaan Sele Mele ak Usine Doole Sele Mele Usine Doole jàpp takk na takk na la Sele Sele génn na saako yi kan mooy jël avertissement ci ñoom ñaar saako yi de fekk jiwul kenn Tony dina dem Tony da koy Neymar wër na ko wër na ko ndomba dina ci génn laa ilaaha illallah oh waaw waaw way xale yi jëlal lii eh! ndeysaan Tony Junior ak Neymar combat bi rëy na oh yi bëre nañ ba naaw ci kaw asamaan bi wàccaat xale yi deux usine doole boo amaatee beneen pert waaye ñu ngi ci diggante Tony ak Tony Neymar Usine Doole am na ñaari avertissement ci kaw Sele Mele ndeysaan xale yaa ngi noonu Petit Lo fi la takk sori na da ngay ñàkk Petit Lo da ngay ñàkk wala déet ñàkkul bi àtte na ndeysaan ndeysaan ndeysaan mu ngi noonu Sele Mele usine doole ba tey ñu ngi ci digg géew bi combat bi yàgg na ñoom ñaar ku ci nekk mu ngi wane boppam ndeysaan ñoom ñaar ku ci nekk kii saa yi ñu ngi ci quart de finale luur yi ci kanam takk nañ ko Tony fi la lay yegg sori na daanu na waaw waaw na meke na ko mu bañ dina yombam déet du ko daan génn na Petit Lo mécanicien Petit Lo mécanicien mécanicien am na avertissement ndeysaan ñu ngi noonu Petit Lo mécanicien combat bi du yomb ndax compétition bi boo ñëwee ba toll fii day laaj stratégie pour nga génn ci day laaj xel pour nga génn ci day laaj xam-xam pour nga génn ci ndeysaan Petit Lo ndeysaan ak mécanicien deux boo amaatee beneen ñàkk Sélé boo amaatee beneen ñàkk Serigne Ndiaye deux ak Sélé Mélé ndeysaan Serigne Ndiaye deux ak Sélé Sélé Mélé Serigne Ndiaye numéro deux bu Fass. Serigne Ndiaye numéro deux ña nga ca ba tey. ay sëñ Fallou Luc Nicolaï. bu ñu nee l'homme des grands événements tey ku ñëw Mbour xam nga ko. Sele Mele Serigne Ndiaye numéro 2. dina ñaliñ ñaliñ gii nga nekk ku fi ñëw xam ne tey l'homme des grands événements plaqué na ko. ko oh! daan na ko. na Sele. Serigne Ndiaye daan na Sele. Coriace daan na Sele de. Sele da ko doon mbot Serigne Ndiaye rocceeku. Eh, daan na Sele Mele. lii nag mooy luur. daan na ko de waaw. ndax Sele da koo déclenché mbot. ñu ànd ba ci suuf. Sélé bañ na jaay numéro 2 ko Xaadim Bamba fekk na ba dëkkam daan. fekk si na ko daan ko. ndeysaan ñëw na jël ci ko moom. moo tax ba njëkkoo wax ji bagee bari ci cimikaay bi ku nekk a ngi wax. ndeysaan ma ngay daw day laaj concentration ndeysaan jaasi pël Modou Jamtéeri ñu ngi noonu ci finalu lese bi fii ci Njaning Luc Nicolas Enko moo ñu fi woo mise bi trois millions la ndeysaan xale yaa ngi noonu bakkat yaa ngay bàkk waykat yaa ngay way waxkat yi foo taxaw dégg leen ñuy wax ñaari mbër yaa ngi jàmmaarloo ba tey dox ci diggante jam Modou jam téeri ak jaasi pël Modou daw na jëli ko jam téeri bañ ndeysaan fatt na suuf saa dugg ci bët ba ndeysaan bët dara xaju ci bët du ay caaxaan du ay fo boo ci dóoree nit ku pañ mu jàpp bët ba bu ci suuf duggee nga jàpp bët ba bët daal bët la tudd ndeysaan moo tax nit dara xaju ci moom ayca jaasi pël yaa ngay bàkk nee na da koy teg ci loxo bi ma yóbbu arbitre bi ngi sifflé waat arbitre bi sifflé na Diassy Peulh ak Modou Jam Téeri ndeysaan Modou Jam Téeri moo leen féete ndi joor sol na ko fàqat na ko mu TV ndeysaan ñu leen di jaajëfal bu baax ci ànd bu rafet bi nga ànd ak organe yooyu ñaari xale yaa ngi ci kaw dox ci diggante Diassy Peulh ndeysaan ak Modou ndeysaan ñoom ñaari gi noonu cey lamb lamba garaaw lamba riis takk nañu ko mu bañ ñaari xale yaa ngi ñaari xale ngi noonu ku ne di déglu sa morom bi àtt na temps bi daa jeex wala déet ay ndaanaan ngeen bu ngeen ñëw ba fii daanu du gàcce na ku nekk joxe li mu am. avertissement ñàkk que le meilleur gagne. Ndeysaan Modou Jam Téere ak Diassy Peul. Modou Jam Téere ak Diassy Peul. takk na ko bañ na. Vélo yaa ngay wadd gaa yaa ngay tekki téere yi di sànni gaa yaa ngay tekki sànni ndeysaan Modou jam téere yi ak jaasi pël Modou ndengeej na ko Modou ndengeej na ko Modou ndengeej na jam téere yi ndeysaan Modou Ndoye gañ na ko Modou Jam Téere ak Jaasi Pël ñoom ñaari ngi noonu jàpp na ci paxataanu la seet jàpp na ko ndeysaan ñu ngi noonu jam je a jaajëfal Modou Jam Téere a jaajëfal ndeysaan ñu ngi noonu ñaari xale yaa ngi noonu ndeysaan moo ñu obligé kon ñu gën a góorgóorlu rek ñaan jàmm ci réew mi boo gisee fee ca Israël ak Palestine la fa xew neexuñu ndax ay réewu jullit jullit yoo xamante ne ci bërëb bi ñuy jaamoo yàlla nga dugg fa di leen di dóori bal. mu dugg fa di leen sànni grenade ak romagel di leen xañ jaamu gi nga xamante ni moom la ñuy jaamu suñu borom te teguñu ko fenn képp kuy jullit métti lu na ko képp kuy jullit naqaru na képp kuy jullit keroog am nga loolu lu la métti ci say morom bi jullit woor ci weeru koor amul luñ leen jox ndogu lu dul xeet boobu jël na ko na ko daan wala déet na ko daan na ko daan daan na ko. daan na ko de. ndeysaan Modou Diam Terry daan na Diassy Peulh. la ko la waxoon la ko la waxoon Modou Diam Terry daan na Diassy Peulh. ndeysaan ñu ngi leen di fay bu baax a baax. papa tey maa xam nga ne bépp presse en ligne buy yor micro kontaan nañu papa. ndax ñun lii la ñu yaakaar ndax ay yenn promoteur yoo xam ne dañoo pare ñaata nit la ñuy dundal xamuñu ñii ñaata nit ñoo nekk seen ginnaaw tey Sénégal yëpp pare pour xeex bu papa yow nga sigil ñu sagal yow papa yow la ñuy tiitaroo lan ngay wax tey sa bis nii waaw damay am mbégte lool dèjà di wax ne li nga njëkk wax dafa am solo yéen da ngeen bokk ci ñun ndax fii Sénégal rek la lépp lu fi waay mun a am xamuloo kañ nga ko fiy bàyyi man na doon suba man na doon tey kenn xamul yàlla na yéex ci barke alxuraan donc tey euh, mbégte laa am parce que lii daf may fàttali ay bés yu bare ñu doon def bu njëkk ba ma ci ànd ak nag et les grands noms de la lutte yi fi nekk tey te événement bépp boo mun parce que ñu ngi doon mbébét nii buñ jógee fii dañuy dem tëggi Tambacounda le 12 juin te boobu tamit niñ ko defee nii noonu ngeen di ñëwaatee yéen ñëpp ànd ak ñun lépp lu war ci yéen dinañ ko def ànd ba fii ba Modou Lo Ama Baldé fu ñu munti dem dañ fay ànd dañuy liggéey tey leen wàccuwaay dinañ lañ ko jox te dinaa ànd ak yéen ñu waxtaan ba xam liggéey bi nuñ ko mën a ñoŋalee ba wax dëgg yàlla ku ne gis ci boppam ngeen gis ci seen bopp ñu gis ci suñu bopp lépp jaar ci yoon nga jëlee te dafa bari ku gis làmb ji mu mel nga xam ne tey ñëpp ak ko xam dëkkam ñëpp mooy suñu dëgg la te li ma leen wax dafa ëpp lépp man ak yéen ba Modou Lo Ama Baldé dinañ ci ànd. xam nga li may wax ci presse laa ko waxee donc di ngeen ko tegaat waaw xam nga ngeen ko tegaat donc ci presse laa ko waxee dinañu ànd Maguette Sène nag li nga wax moom c'est la première fois ma tuddee laamu politicien première fois génnal ma archive yëpp musul am 21 ans de carrière abbé indi naa ko fi bay euh, vieux cinq cinq tëggal naa ko drapeau parce que suma xarit la Kumba Gawlo sargal naa ko ndax suma xarit la c'est la première personne bu ma def ak moom lii man dama am ay conviction ci àdduna et je pas peur de mes nit la koo xamante ne li mu liggéey ci département bi barewul ñu ko fi def li may wax man xam naa ko et je bien mes mots je pèse bien mes mots te boorewu ci ak wax ju bare moo tax tey ñu bëgg a liggéeyam nit nag du ñàkk ñu àndut ak yow loolu moom ala kulli aalit àdduna moo tëddee noonu bi sax sallallahu alayhi wa yaakaar naa ne ñëpp ànd ñoo nag moom waxatu la ak ñun ay nitu kase mais ku ne rek na nga gëm li nga na ci ginnaaw bu ñu fàtte benn affaire mooy ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal ñoo bokk ndey bokk baay ak lu cool yi bare bare yow mii di wax ak man bu ñu waxtaanee ba sore sore am na fu ñu bokkee deret loolu buñ ko réeree mbir Sénégal dafa tuuti soobee yàlla incha allah góor naa si jàpp naa ko dinaa ko jàpp bu baax a baax li nga ko lan nga ndaw yi maanaam CNG de lutte bi dañ leen di doog installé mënaguma leen jugé bon Bira tant que nit ci liggéeyam de nit laa wax nit ku baax donc buñ ko jàppalee épaulé ko xëy na. yàlla mën na ko dimbale mu génn ci mission bi mais na déglu na déglu acteurs yëpp parce que làmb dafa doy waar. ñu ngi ciy bëgg a yàgg nag tuuti yàgg nañ ci yàgg ñu ci. 21 naa loo ci def 21 ans yaa ciy bëgg a yàgg lu bari na luñ ciy gis. ñu ñëw ci combat royal bi nga xamante yaa ko organisé mu dox ci diggante Modou Lo ak Ama ñu defoon face to ñoom ñaar foo sànni mbàtt mu tàkk. nga fas yéene defaat face to kañ nga ko def ak yan disposition nga ci jël. ñun daal li ñu jël comme bébét mooy le 3 juillet lañ ko bëgg a def ci Gambie stade Bakaaw te ni ngeen ma tiimee micro yi nii noonu la ñuy tiimaatee micro yi foofu ndax yéen ñëpp laay yóbbu bu soobee amul kenn kuy des. yal na yàlla guddal sa fan. ci barke alxuraan. nga bëgg yaa ko xam yal na ko suñu borom defal. amiin amiin amiin yaa ngi jàppale jeunesse Sénégal. amiin yow mii lañ war a jàppale ndax yow yaay jàppale jeunesse Sénégal. amiin amiin yow mii yaay jàppale ndaw réew. jërëjëf tey boo kenn nii nga def ci say gis ñu benn promoteur bu koy def. dëgg la andi ko ci gox bii nga ko andi. ñu koy def ñëpp dañuy xool lii bu baax ñu def ko fa. mais yow dong yaa ko andi fii ci Nianing pourquoi ça nga choisir Nianing. waaw non Nianing moom laa pourquoi pas Nianing aussi parce que Nianing ci Sénégal la bokk ah. ci Sénégal la bokk tant que ñu ngi privilégié ville yu mag yi bàyyi yu ndaw yi nag Sénégal du avancé donc fépp la ñuy dem ah, ñun dinañ dem fépp ci suñu mbébét combat bii nag dama xaw a mag pour gérer ko du yomb moo tax maa ngi waxtaan bëgg a woo Jax biy tëgg làmb bëre simple yi ñu def collaboration ma ak moom parce que yàlla boole nañu ma ak moom ñu am vraiment relation yu baax pour ñu ànd mu épaulé ma ci mbappat yi ñu ànd liggéey ko waaw yàlla mi leen dara teewul yàlla na leen yàlla jàppale kontaan naa ci yi ñu ngi ci samedi. arbitre na final ba 2021. c' est actuellement zéro heure douze minutes. fii ci stade bu Nianing. doomu Badiana bi doomu Malika bi Ndiaye numéro 2. à droite. ak jiital tànk ndijoor. ñoo dem final pour Lacrymogène Serigne Ndiaye numéro 2. waaye Lacrymogène ndaanaan la ndax compétition bi ñu fa nekk ponkal ñëpp moo leen. numéro 2 Lacrymogène Serigne Ndiaye dox na ci koom. lu mu nar da ko jaay doole wala déet. Serigne Ndiaye tey ngaa tey. Serigne Ndiaye defal ndànk ci xale bi dafa mën a bëre comme yow. Serigne Ndiaye yaa ngi bëre xale bu mën a bëre. Serigne Ndiaye numéro 2 ngàtt na ko mu daanu. Eh. da ko doon la da ko doon ngàtt mu daanu. Eh, eh. ñu ngi leewaatoo ñoom ñaar. chef pardon chef tuuti rek tuuti. tuuti rek chef. Serigne Ndiaye numéro 2 la daan xëcc na ko. Serigne Ndiaye bay patam patamee. ñu ndeysaan jël na tànk ba mbot na ko ndeysaan wër na ko ndombo Serigne Ndiaye daan na ko Serigne Ndiaye daan na ko Serigne Ndiaye li ma doy jël na commission bi ci loolu rek ma sel Adama Kaay Adama Kaay daw si Adama Kaay Serigne Ndiaye ñooñu. waaw sant yàlla rek. mooy sant yàlla bu baax. non dara xew dafa teg loxo moo am dindi xaw ma doon wóob mu dal loolu kese la mais tey moo bilaay walaay sama moo dara mais tey moo bari sëñ Tuubaa. waaw dal la wax dëgg yàlla dal la waaw bilaay aw ma yéene boobu quoi ak Serapal ma jégalu baax bilaay. depuis avant koor ba léegi. bii mooy sa deuxième sortie boo xam ne sortie bu njëkk bi da nga ko def arène nationale nga ñëwaat tey bu mel da ngaa a sa dugub boobu lan la. dara sant yàlla ñun ay xale lañu compétir mënuñu dara dañuy daanaka suñu biir kenn mënu su ma ñëw gën a xewle waaw bu tax bu demee nii yàlla daal jël dara boobu di sant yàlla ba sant sant nañ ko suñu yàq ak ñu ne àndal ñu am seen fay maa ngi nuyu sama yaay bu baax ñu ne am yaay sama papa non kooku kooku mu wax si moom li mu respecté dafa bëri trop yow mu wax say milliards parce que naa ma xool man wax ñaar milliards